fan ci weeru février atum deux mille vingt ministère bi dënk wérgu yaram askan bi jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñaari junni ak ñeenti téeméer ak fukk ak benn test yu ñu def ñeenti téeméer ak ñeent ñoo ci positif maanaam téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn cas contact mooy ñu laale woon ak ñi amee doomu jàngoro bi amul benn cas importé ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett ñoo am doomu jàngoro bi te xamuñu fu ñu jëlee ñu naan leen transmission communautaire ci ñooñu ñaar fukk ak juróom-ñeent dañu nemmeeku ca Thiès ñaar fukk ak juróom ca Saint-Louis ñaar fukk ca Mbour fukk ak juróom ca Louga juróom-ñeent ca Dakar Plateau ak Touba juróom-ñett ca Yoff juróom-ñaar ca Kaolack juróom-benn ca Diofior Diourbel Kër Massar Point e, ak Tivaouane juróom ca Koki Kaffrine Mariste Parcelles Assainies Petit Mbao Pikine ak Zac Mbao ca Cité ñett ca Daaru Musti Jamñaajo Xombol Sokone ak Caaroy ñaar ca cité Aliou Sow Fann Fass Grand Mbao Guinguinéo HLM HLM Las Palmas Joal Mboro Ñaari Tali Nord Foire Waaguñaay Ouest Foire ak Vélingara benn ca Almadi Bambilor Cambérène Castor cité Fadia cité impôt domaine Colobane Diamaguène Grand Yoff Guédiawaye HLM Grand Médine Kër Kidira Liberté 1 Liberté 6 Linguère Mamel Mermoz Ngor Nioro Wakam Patte d'Oie Sacré-Cœur 3 Sakal Sébikotane Sicap Baobab Sud Foire Sicap Mbao Tamba ak zone de captage téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom malade ci ñi ñu hospitalisé war nañu bésu juróom fukk ak ñeent malade ñoo ngi réanimation fukk malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb di déeru fanweer fan ak benn ci weeru janvier atum 2021 ñu leen di jaal seen bopp di ñaan suñu borom xarale àjjana ñeneen ñi des hôpital ñoo ngi tame ci bésu tey dalee ko ci cas njëkk Sénégal wàññi ñaar fukki junni ak juróom benn ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaar cas positif ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñaar ak téeméer ak ñeent fukk ak juróom wér nañu si juróom benn téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñàkk seen bakken mu des ñeenti junni ak téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci hôpital bi ministère bi ñu dënk wérgu yaram askan bi mu ngi leen di ñaan ngeen continuer di sàmmonte ak digle yi maanaam takk suñu masque saa ne di raxasu saasu ne ak ndox ak saabu ah, di boole ci dandante lu tollu mètre suñu diggante ñoo ngi leen di gërëm wasalaam